أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala di tàmbalee tey ba tey ñu toll ci suratu al araf tey nuy tàmbalee aya 23 24 25 mu nekk ñetti aaya yunu sunu boroom subhaanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir mbir yooyu ba ca jiitu mooy qawlu aadam wa hawa rabbana zalamna anfusana al aaya wal kalima allati alqaaha taala ila aadam fatalaqaaha anhu fa taaba alayhi biha aaya bi ñuy jàng tey dafa bokk ci aaya yi nga xam ne dafay leeral bu baax a baax ak di dajji ak di wàññ gaa ñi nga xam ne dañ naan aadama bi mu tooñee boroomam dafa gis ñu bind ci àjjana turu yonent yàlla muhammad ci xob yeeg ci bunt yeeg ci nangam nangam yi mu daan ne yàlla baal ma ndax borom tur bii aaya bi moom da ko weddi complètement saxalu ko benn yoon sunu borom subhaanahu wa taala lim nu xamal mooy aadama ak hawa ba ñu tooñee seen boroom lamma zaaqa aadama wa hawa al shajara ñoom ñaar ba ñu mosee garab ga lu njëkk lu leen wan ne tooñ nañ seen boroom mooy wa badat lahuma sawaatuhuma seen awra dafa wuññeeku commencé feeñ sunu borom subhaanahu wa taala daal di leen di yedd ci loolu daal leen di yenkewal nag ba ay baat daal leen di sa ay baat baat yooyu mooy rabbana zalamna anfusana yow yàlla ñun dey tooñ nañ sunu bopp kon baat yooyu la yàlla sawe aadama aadama daal di koy jël daal di koy wax borom bi tabaraka wa taala borom bi daal di koy baal kon li ñuy jàng foofu mooy képp ku def bàkkaar boo tuubee yàlla dina la baal dinañ jàng foofu ne aadama li tax yàlla baal ko dafa tuub hawa li tax yàlla baal ko dafa tuub waaye dinañ jàng iblis li tax yàlla baalu ko mooy daa lànk ba ñu tuub ndax iblis moom bi ko yàlla ne ma manaaka an la tasjuda id amartuk lan moo la tere sujjóot ba ma la ko waxee moom nekk fa naan yàlla baal ma rek dafa tontu rapidement qaala ana xayrun minhu kii maa ko gën commencé di indi ay justification di lay aadama nag ba mu laalee garab gi mu wóor ko ne mooy na yàlla moom daa tuub dellu ci yàlla tabaraka wa taala kon ku tuub yàlla dina la baal fekk buntu tuub tëjul fekk eggoo ci xarxar di xarxari pour dee fekk jant bi xëyul fenke sow soo tubee yàlla dina la baal dinañ jàng ñaareel li ñuy jëlee ci ay encore mooy surutu tawba dinañ jàng sarti tuub la ca jiitu mooy al itiraaf bi zambi yow mi tooñ yàlla yow mi def bakkaar ngir reconnaître ne def nga bakkaar Adama ak Awa bi ñu defee bakkaar dañ ko reconnaître lu nu wax dal lan wax bi ñu defee bakkaar bi dañoo ko reconnaître rabbana zalamna anfusana gis nga moo tax ku def bakkaar sa bopp nga tooñ tooñoo yàlla de ndax yàlla ay bakkaar munu ko munu ko yàqal dara ay bakkaar du wàññi dara ci nguurug yàlla ku def bakkaar sa bopp nga ko def waaye ku def lu baax it sa bopp nga ko def in ahsantum ahsantum li anfusikum charti tuub ci téere boobu ñu naan al akhdari ñun ñëpp lan lañ fa jàng mooy an nadamu ala ma faat wan niyatu an la yauda ila danbin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka al maasiya fi saatiha in kaana mutalabisan biha sarti tub la ci jiitu mooy yow mi def bakkaar bi nga reconnaître ne def naa bakkaar te loolu lim lay jural mooy soo nangoo ne def naa bakkaar rek di nga ko tuub léegi nag lan la lay jural mooy wa dhalika bil istighfar ay talabil maghfira nga commencé nag di jéggulu yàlla tabaraka wa taala yàlla baal ma comme ni ko aadama defee ak hawa nangu nañ ne tooñ nañ yàlla bañ ko nangee ñu tuub yàlla baal na leen waaye pine na leen yàlla baal na leen waaye pine na leen punition bi mooy lan mooy génn na leen àjjana wàcce leen ci kaw suuf ne leen nag àjjana moom bu ngeen fa bëggee delluwaat da ngeen di góorgóorluwaat rek nekk ci sama santaane bu ngeen dee ma delloo leen aljanna ñetteel bi ñuy jàng ci darsi yi mooy al istighfar jéggulu yàlla jéggulu di istighfar di jéggulu yàlla sunu borom subhanahu wa taala wax na ci hadis mu ne jaam yi li ñuy bari bari bari bari bakkaar buñ ma jégguloo man yàlla dama leen di jéggal ñaata aaya ñoo wàcc di ñu sonn ña di ñu soññ naan ñu istaghfiru rabbakum innahu kaana de leen jéggalu yàlla ndax moom yàlla dañul di jéggalaate doomu aadama ay bakkaaram bu tolloon ne vague géej wala mu toll ne pépp suuf su jéggaloo yàlla yàlla daf koy jéggal danañ jàng beneen bi tey mooy su uumul xatia musibay bàkkaar bàkkaar mbonam nit wala am mbindeef mënta bëri bàkkaar ba mucc doo mucc àdduna doo mucc àllaaxira suñ leen doon laaj ñaari laaj iblis lan moo tax yàlla dàq ko biir aljanna loolu ma lu mu def bàkkaar aadama ak awa lu tax yàlla dàq leen bàkkaar kon bàkkaar baaxul doomu aadama ak mbindeef mu mu mën a doon bakkaar baaxul ci sa dund àdduna baaxul ci yow àllaaxira lan moo yóbbu nit safara bakkaar lan moo génne iblis àjjana bakkaar lan moo génne awa àjjana bakkaar lan moo tax doomu aadama rey moroomam ñaari doomu aadama yi bakkaar lan moo tax nitu nuuhi yàlla alag leen bakkaar nitu muusa yi Bakkaar lan moo tax Yunus yàlla tëmbal ko ci géej gi jën wann ko Bakkaar xawmu aad lu tax yàlla alag leen Bakkaar waa Samuud ashaabul ayka xawmu tubba ñooñ ñëpp lu tax yàlla alag leen Bakkaar Firawna lu tax yàlla barak alag ko Bakkaar kon mbokk yi Bakkaar a ngoog kaana sabab li tarbi Iblis min rahmatillah moo tax yàlla dàq Iblis ci yërmandeem looloo tax wa ixraaju aadama min aljanna moo tax yàlla génne aadama ci biir aljanna iblis moom complètement lañ ko dàq ci yërmande yàlla lu tax ndax dafa bañ a tuub amma aadama yàlla baal na ko waaye nag yàlla génne na ko aljanna loolu danañ ko jàng bàkkaar baaxul te tamit bàkkaar jarul xeeb li tax jarta xeeb mooy ku ne xam ngeen ne iblis wax nañu ay qualité am wax nañu ni mu màgge woon ci yàlla tabaraka wa taala waaye gis ngeen fu mu mujj te moom iblis ñaata bàkkaar la am benn la am te benn boobu moo ko yàqal nun ñaata lañ am kenn mënu ko konte ci la ñuy xëy ci la ñuy yéen ci la ñuy gont ci la ñuy fanaan di ko ñaan moom borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ñu ñeenteel mooy laa tatimmu xayaatul insaan ala gayril ard doomu aadama danañ jàng tey doomu aadama mënta dund fenn fu dul ci kaw suuf boo demee asamaan mënoo faa dund boo duggee ci biir ndox mi mënoo faa dund boo nekkee diggante asamaan ak suuf ci jaww ji mënoo faa dund benn benn benn adduna rek benn place benn planète ci àddina bi moom dong nga mën a dund mooy foofu ñuy wax la terre foofu rek nga mën a dund mën a dund feneen loolu nag li muy dëggal mooy minha xalaqnaakum wa fiha wa minha jeex na amoo feneen foo mën a dund wala yudfanu baada al ma- baada mawtihi fi xayriha soo dee it mënuñu laa suul kaw asmaan ah ndeysaan Euh, yaay Fatima radiyallahu anha dafa wax Bilal bi yonent bi faatoo ay Bilal Bilal yi xanaa seen yaram du daw naka la Muhammad di faatoo ngeen xar suuf si gas ko ak seeni peel ngeen jël yarama Muhammad ni mu tedde ci yàlla ngeen koy suul ci suuf ay yéen Bilal yéen yéen yéen yéen xanaa yéen seen yaram du daw hmm. allahu akbar moo tax fu ñuy fu ñu jëlee Muhammad gas suuf si du ko ci dugal keneen waxi noppi boo waxee ñu naan daa làqoog li waa jooju di wax am na benn waay bu nekk ci whatsapp bi ñu naan wérul mu ne sëriñ bu dee ñu ne daa làqu fu mu làqu fu mu làqu mu ne day nelaw kuy nelaw ku dul yeew mu ne ñi gën a ñàkk sens ci Sénégal mooy sëriñ yi ñu ne ko lu tax mu ne kenn du leen ñaanal yërmande mën ngaa dégg ñu ne sëriñ bi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ak yàlla na yàlla yokk leeram ak yooyu da la ñuy wax waaye yàlla na ko yàlla yërëm doo dégg mukk ko wax nit ñi li ñuy bari bari bari bari doo dégg ku ne yàlla na ko yàlla yërëm te Muhammad dañuy wax yàlla na ko yàlla yërëm sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy la loolu mooy yàlla na ko yàlla yërëm doomu aadama bu faatoo amul fenn fu ñu ko mën a suul furul ci suuf kenn mënu laa yóbbu kaw asamaan kenn mënu laa yóbbu biir géej kenn du la sànni ci biir montagne yi ci suuf si rek mu ne loolu mooy dalil li yàlla wax ci alquran fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuun wa minha tuxrajuun ci suuf si ngeen di dund fi ngeen di fii rek ngeen di dunde amul feneen ndax fii la yàlla préparé loolu ñuy wax oxygène fii dong la am amul yeneen planète yi war a gis ngeen gars yi bu ñuy dem kaw asamaan lu ñuy def dañuy yóbbaale oxygène marin yi bu ñu duggee ci biir géej lu ñuy def dañuy yóbbaale oxygène ndax planète yooyu yàlla deful doomu aadama pour mu mën faa dund yàlla fii dong la defar pour nit man fee nekk maanaam mu ne fii ngeen di dundee fii ngeen di dee. bu ngeen dee ñu dénk leen suuf si yowmal xiyaam ma wax suuf mu génne leen suuf génne leen ci tënk bu gàtt bu gaaw mbokk jullit yi mooy ñetti aay yi ñuy jël tey ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp mu jéggal ne jéggal ñu njuum tey ak manqué manqué yi ma bàyyi incha allah cheikh bi bi iznillah mu jàngal ñu aaye yi qaala rabbana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون barakallahu fiik jazakumullahu xayran sunu borom subhanahu wa taala mu ne qaala lu muy tekki mooy ñaata lañ ñaar su noon kenn lu muy wax qaala moo tax ñi naan euh, awa kese la déedéet moom moo lekk yàlla waxul loolu ci aaya yàlla ne fa lamma zaaqa ñoom ñaar ba ñu mosee fii tamit ba ñuy tuub ñoom ñaar ñëpp la yàlla boole qaala ñoom ñaar la musanna la qaala ñoom ñaar nee nañu rabbana yow sunu borom ndeysaan reconnaître nañ am nañ borom bu leen bind am nañ ku leen moom am nañ ku leen sàkk am na ku leen di digal am na ku leen di tere moo tax ba ñu tooñee ñu daal di koy adresse wax ja ñu ne ko rabbana yow sunu borom yow buur bi ñu sàkk yow kinu moom nun ñaar ñi kat zalam naa gis nga ba tey day wane ne du aawa kese mais aadama ci la bokk tooñ nañu anfusana sunu bopp waxuñu tooñ nañ yàlla waxuñu tooñ nañ kenn kan lañ tooñ seen bopp képp ku def lu bon sa bopp nga tooñ waaw waaw bàkkaar yi li muy bari bari bari bari bari sa kaw lay këpp waaw yow kenn la ñuy àtte ëllëg yowmal qiyaam yow kenn yaay dugg sa bàmmeel suñuy fay yow kenn la ñuy fay moo tax ku def lu baax sa bopp nga ko defal waaye ku def lu bon it sa bopp nga ko def ñoom ñaar nee nañu yow sunu boroom ñun dey tooñ nañu zalamna anfusana tooñ nañ sunu bopp moo tax boroom xam-xam yi ne bàkkaar yi ñetti bàkkaar lañ bàkkaar bi nga tooñ sa boroom ak bàkkaar bi nga tooñ sa moroom ak bàkkaar bi nga xam ne koo tooñ sa bopp bi nga tooñ yàlla yàlla rek moo la koy jégal keneen mënu ko bi nga tooñ sa moroom foog mu baal la ko bi nga tooñ sa bopp yàgg sa bopp la yow sunu borom ñun tooñ nañ sunu bopp te mooy dang ñoo digaloon waaye am loonu tere ne buñ ko def tey nag def nañ loolu loolu nga nu tere woon nañ ko bàyyi bàyyi wuñ ko wala buñ ko def ñu def ko wala nañ ko def ñu lànk yow yàlla tooñ nañ sunu bopp ci loolu léegi nag wax ji mooy wa in lam taghfir lana cay soonu jéggalul loolu mooy charte bi in bi wa in lam taghfir lana cay soonu jéggalul wa tarhamna cay soonu yërëmul lanakunanna danan bokk min alxaasirina ci way perte yi lam bi laamul xasam la giñ nañ ci sa màggaay ñaari rek lañ soxla tey mooy al maghfira war rahma moo tax bu nit deewee ñu war a wax allahumma ighfir lahu warhamhu yàlla yërëm ko jéggal ko mais nit faatu ba pare ñu naan ay yokku leer ak ay yëkkati maqaama ak ay ñu taas ci barkeek yooyu yëpp ay caaxaan la ku dee ku ne ñaar yi rek nga soxla mooy lan ñaar kese kese kese kese ku faatu yërmande ak njéggal ñaar yooyu rek nga soxla arrahma wal maghfira soxla boo leneen bàkkaar it boo ko defee li nga soxla mooy njéggal ak yërmande yii rek moo fi nekk amul leneen moo tax doomu aadama lu mu war a njëkk njëkk njëkk di ñaan yàlla bis mu nekk mooy yow yàlla yàlla nga ma jéggal ndax yàlla bu la baalee rek yërmandeem ñëw ci yow su la baalee rek dootul xool li nga def yërmandeem day ñëw ci yow ndeysaan yonent yàlla Moussa ci jamonoom dafa amoon maral am bekkoor bu metti Moussa ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla mu ne ko da ngeen di julli julli baaw naan ñu génn dëkk ba yëpp génn ñu dem di julli ji julli baaw naan biñ demee ba ci àll ba bi ñu jullee ba pare affaire yi continué mel ni mu meloon wow koŋ Moussa mu ne yàlla ah ñun de ñëw nañ fii julli nañ julli baaw naan jéggalu nañ waaye ndox ñëwul yàlla mu ne mbooloo moomu ngeen toog dafa am ku ma fi tooñ te fekk jéggalu ma ndox du ñëw Moussa daal di koy wax délégation bi nit ñi mu ne leen sunu borom subhanahu wa taala nee na mbooloo moomu dafa am ku ko fi tooñ te kooku foog jéggaluwul ndox du wàcc nga la waay mbokk yi ku nekk fi nga toog jéggalul ñëpp daal di jéggalu waa ji daal fi mu toog mu daal di jéggalu mu jéggalu rek ndox bi daal di wàcc ah comme Moussa gis na ne ndox wàcc na xam na ne wan waa ji jéggalu na Moussa daal di tourné ci yàlla mu ne yàlla wan ma kan la waay Moussa ne ko bi mu yàlla ne ko bi mu ma tooñee wanu ma la ko ma baal ko ma la koy wan ndeysaan waa ji bi ma tooñee wanu ma la ko ma baal ko léegi ba pare ma koy wane allahu akbar même yowmal xiyaam doomu aadama day def bakkaar mu ñëw yàlla woo ko ne ko fàttaliku nga bisu sàngam ne waaw fàttaliku naa ko kay ne xam nga li nga defoon de ne xam naa ko kay yàlla mu ne ko léegi nag ne nga yërëm ma rek yàlla mu ne ko demal bal naa la kenn du ko xam nu ma ko nëbbee woon ci àdduna laa koy nëbbee àllaaxira kenn du ko xam demal mooy tax yàlla tudd ci turam yi des na beneen as-sattar yàlla mooy muur lépp kenn du gis dara daf koy nëbb mooy borom sutura bu mag yàlla moo bëri sutura moo tax gis nga muy ndil nu guddi Hmm? am na seen benn waykat bu way mu ne bu doon guddi gi dafa jékki-jékki rek daal di nekk bëccëg kon lu baax de Hmm. Hmm? bëccëg yu jékki-jékki rek guddi gi rek deux heures du matin rek mu ne keret jant bi nekk ci digg asamaan bi kon dina am ñoo xam duñ génn fuñ dugg mukk foofu rek la ñuy toog duñ génn mukk foofu rek la ñuy toog allahu akbar yàlla mu bëri sutura moo tax mu ne wa jaalna layla libaasan maa def yé guddi mu nekk yére yére lan lay jëriñ ñun ñi yëpp lu tax fi mu nekk ñu rafet ñi ñu toog fi yëpp lu tax ñu rafet mooy yére boo simmee koo léegi rek ñu ne njaggee mo kenn du laajte ku fi mu nekk nii ci ñun ñi ku def yaramu neen kenn du laajte dañuy def ne eh eh eh jàpp leen ko dañuy daw léegi jàpp la ñu ne kii wérul kenn dootul discuter léegi nit ñi kay ku ñëw daan waa kii kañ la ko lii dal fekk waa ji dara dal ko de ñu ne lii kañ la ko dal ñu ne ñu ngi discuter ci sa xel ndeysaan parce que xam nga ne li nga def nii moo tax nit ñi war a delloo sa xel xoolal yàlla mu ne eh, doomu aadama yi ñu ne ku def yaramu neen wéroo nit ñi def ay yaramu neen tey ne dung ci mbedd yi allahu akbar léegi léegi laa xool Facebook si benn dëkk ci dëkk jullit yi xam ngeen lan mooy lañ leen concours xam nga lan mooy concours bi jigéen ñi xam nga lan lañ leen di concours léegi passé na concours Miss passé na concours njool passé na concours am yaram concours ween moo ngi Facebook kenn nettali moo ko gis naa ko démb gis naa ko tey xale yu jigéen yi rang nii ñiy seet kan moo gën a rafet ween Tunisie Tunisie dëkku lan la dëkk jullit la comme Sénégal loo xam ne doo ko gis France doo ko gis ay Amérique doo ko gis sax Israël mais vraiment ñun fu ñu jëm xoolal tey fii Sénégal daanaka jigéen buy waddu amatul jigéen ñëpp a ngi def yaramu neen donc léegi laay wax sama soxna xoolal sedd bi ni mu méttee nga xam ne góor ñi sax dañuy kof kof koo gis dafa tegale nga gis ku def yaramu neen moom di cikiri cikiri mel ne picc mu liw non të të të të të të të. benn paa daaw ma ne ko waaw xale jigéen yi xanaa duñ liw mu ne ma duñ liw dañoo diw kii lañ diw mu ne ma lan baabun mu ne ma baabun la ñuy diw duñ liw ma ne ko wallahi dañoo alku rek waaye dinañ liw kenn mënut a diw benn forosé ba doo liw loolu amul fenn dañoo alku rek moo tax gis nga dañuy feebar di dee rek kenn du xam lu leen rey ndax sedd bi baaxul ci yaram nit dafa war a bu dul diine sax nit ci boppam dafa war a nëbb ay yaramam nit dafa war a nëbb ay awraam gis ngeen aadama ak awa ba ñu tooñee yàlla li ñu njëkk a gis mooy dañu ne dung ci biti seen yaram yi dafa awra yi dafa feeñ moo tax ñoom ñaar ñu ne yàlla wa in lam taghfir lana ca yàlla boo nu jéggalul wa tarhamna nga yërëm nu ay amul kenn kuñ fi mën a sëfe yow rek yaa mën loolu du kenn léeg-léeg nga dégg fii ci dëkk bi li tax nit ñi di mooy yàlla mooy jàpp ne am na ñu nekk àllaaxira ñoo xam ne mun nañ laa ñaanal yàlla ay intervention wala ñu nga fa wala wala wala wala yooyu ay caaxaan la yow yàlla boo nu yërëmul boo ñu jéggalul lanakunanna danan nekk danan bokk minal xaasirina ca ñay perte ña te ñi perte mooy allazina xasiru mooy daxalu annaar alxaasirin ah mooy ñi nga xam ne dañoo dugg safara ëllëg yowmal qiyaamati danañ ci yàlla musal perte dëgg-dëgg mooy nit dekki dem safara qul inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum allazina xasiru ahli anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama lu ci yàlla teg ala inna ala dalika huwa al xusraanul mubin yàlla mu ne perte dëgg mooy yow nga dem safara yaag sa waa kër yàlla nee na loolu mooy perte dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy doomu aadama ak njabootam yëpp ñu buub leen dugal safara yàlla ñu ci àll musa jéggalu nañ yàlla borom bi tabaraka wa taala jéggal na leen waaye nag am na punition bu ci tegu qaala borom bi ne leen ihbitu gis nga jamu bi ñëwaat na kon bu kenn rek di wax ne ku jigéen ki la ku jigéen ki la ku jigéen ki la wàcc leen yéen ñëpp génn leen ihbitu la leen yàlla wax aywa yéen ñaar ñëpp ilal ard wàcc leen ci suuf ibnu kasir nee na sunu borom subhanahu wa taala waxul ci téeréem bi fan la leen wàccee waaw waaye ñoom ñëpp génne na leen biir aljanna wàcce nañ aadama wàcce nañ xawa waaye wàcce nañ iblis ñoom ñëpp wàcce nañ leen génne nañ leen biir aljanna léeg-léeg lenn ci borom xam-xam yi ñu ne aadama moom ba mu wàcc Inde la wàcc ñu ne awa mu ngi wàcc jidda ñuy dox di wërante ñoom ñaar ci ay at yu yàgg yàgg yàgg lool ci coono bu metti lool borom xam-xam yi nee na aadama makasa salasa mi a sana lam yarfa ra'sahu ila sama li xayaa i subhanahu wa taala aadama bi ko yàlla wàccee toog na ñetti téeméeri at xoolu kaw asmaan dafa sëgg rek nii rek lay def nii daful nii mukk ci kaw ndax rus yàlla tabaraka wa taala waaw yàlla wàcce ne leen ne leen ihbitu wàcc leen kon lu muy tekki mooy mbir mi fan la woon kon ca àjjana dëgg-dëgg ji ñuy wax ne foofu la ñu yàlla dikk foofu la woon waaw te àjjana yooyu mu ngi kaw asamaan loolu lan mooy dalil bi wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun li leen yàlla dikk ak seen wërsëg li ngeen di dunde nekkul ci ko suuf mi ngi asamaan waaw mu ngoog sunu borom subhanahu wa taala ne leen wàcc leen baadukum lenn ci yéen li baadin ñeel ñeneen ñi addu wun ay noon rek ngeen di nekk doomu aadama góor jigéen iblis ñëpp ay noon la ñuy nekk waaw mu ngoog ñenn ñi nee nañ iblis keroog ba muy soppeeku di leen nax ab jaan la woon yeew moo tax doomu aadama fu mu njëkk a gis doomu aadama maat doomu aadama fu mu ko njëkk a gis rey ku nekk day fexeel moroomam baadukum li baadin adu lenn ci yéen léeg-léeg nga gis jigéen ju fexeel góor léeg-léeg nga gis góor gu fexeel jigéen léeg-léeg nga gis noonu rek ay noon ngeen di nekk ba yowmal qiyaamati du ngeen juboo mukk da ngeen di noonoo ndax noonoo gi du woon fii fan la woon ca kaw iblis ak njabootam su sunuy noon lañ ñu nit seeni noon lañ aadama ak ay doom ak njabootam ku nekk nekk day noonu moroomam mu ngoog borom bi ne leen wala kum am ngeen ñeel na leen fil ard ci suuf mustaqar saxuwaay fii rek ngeen di sax gis nga li ñu doon wax sànq ñoom aadama mënut a sax fenn furul fii ci kaw suuf si fii rek moom la ñuy am istiqraar amul feneen mooy sax ak dal fii dong dong ci kaw suuf si makaanu istiqraarihi wa iqaamati place bi doomu aadama di sax place bi doomu aadama di dëkk fii kese la kenn ci ñun mënoo dem dëkki kaw asamaan xam ngeen ne tey ji américains yi bu ñu mënoon dëkki asamaan waa suuf jeex nañ danañ dem bombardé ñu ñun ñëpp waxoon nañ fi ne dem nañ asamaan mais xam-xam bi léegi lii la trouvé ne américains yi mosuñu dem kaw asamaan ndeke dañ ñu doon nax demoon nañ fa ba samp fa ñu ne seen mais nan la ko gars yi trouvé drapeau bañ fa defoon da doon da doon foloote te foofu amul ngelaw gis nga loolu kañ lañ ñu naxoon nit ñi kañ la ah kañ kañ lañ naxoon nit ñi gars yi nekk fii oh américain ñoo garaaw Euh, ñoom de dem nañ ci yàlla ndeysaan dem nañ ci fu nekk li waa ji defoon fekk benn américain bu tuub muy jàpp beneen mbokk américain fekk ko muy jàpp mu ne ko looy def ni yow mu ne ko man de damaa dugg ci lislaam mu ne ko yaa tardé ñun dem nañu fu nekk ci adduna bi dem nañ kaw asamaan dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ ba ci weer wi mu ne ko waaye ci weer wi ngeen yem mu ne waaw mu ne man lii may def ci borom weer wi la may yóbbu yéen nag ci weer wi ngeen yem man ci borom weer wi laa jëm allahu akbar looloo tax waa jooju tamit daal di tuub wax jooju moo ko tuubloo waaw dem ci weer wi amul njëriñ dem ci jant bi amul njëriñ yëg kaw asamaan amul njëriñ ah tabax ay gratte-ciel yi kenn xamul amul benn njëriñ xam nga lu am njëriñ nga dem ci sa borom loolu moo am solo te munoo munoo jaar fenn ba yegg ci sa borom furul ci jaamu ko ci jaamu yàlla rek la ñuy egg ci moom te ku jaamul yàlla doo yegg Sénégal moom da ngay gis tey kuy naan sàngara ku la ne man damaa yegg kii nu muy def ni ñu ne daa yegg ak a bëri Sénégal ñu yegg waaye nag ñaari façon yegg am dañuy jaawale waaw daa am yegg ci yàlla ak yegg nag terminus am na yoo xam ne koy def da ngaa yegg di boo yegguloon doo ko def ak bëri fi ay nit yoo xam da nga leen di gis ñu ne wuu kii dafa kii yegg na waaw wax na dëgg wax nañ dëgg yegg nañ waaw waaye nag dañoo waroon laaj ko kooku ne man yegg naa dañ ko waroon wax foo yegg ndax ku yegg ci yàlla moom ku ko gis rek xam ne kii yegg na ci yàlla waaye ku yegg ci yàlla sa bopp bi baramu jaxasoo nga sol ay yére yu tilim di xasaw xunn saw ak sàngara ak yàmba ah ñu ne yow da ngaa yegg foo yegg fan waaw ñii di gis yàlla ñii yegg ñii naan man dootuma julli yegg naa waaw tarbiyu naa ba yegg dem naa ba ci yàlla yàlla wàccee na ma liggéey li amul woon jamono yonent amul woon jamono Aboubacar amul jamono Omar Ousmane Ali amul jamono aimmal arba Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad tey moom la ñuy gis fii ci ñun suñu réew yi li amul woon sax jamono alaaji Malik ak Cheikh Ahmad ah Cheikh Ahmad Bamba ak ñeneen ñi mel ni ñoom li amul woon seen jamono sax tey da nga koy gis fii waaye ñoo xam duñ jaamu yàlla ba pare ne la ñun yegg nañ ci yàlla li borom xam-xam yi alxuraan di wax ne law kaana xayran la sabaquna ilayhi ñun tey lii ñuy wootew bu doon dëgg la kon ñee jiituñu ci law kaana xayran la sabaquna ilayhi su doon bañ a julli dina yóbbu nit àjjana kon sahaaba yi ñoo ciy jiitu ndax ñoo ñu gën a bëgg lu baax su fekkoon ne bañ a defee arkaanul islam mooy yóbbu nit àjjana kon ñoom ñu jiitu ñu ci waaye da ngeen alquran lu mu wax kaanu qalilan min al leyli maa yahjaun allazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama da ngay jàng rek tey ci fajar maa ngi jàngal xale yi qissa sahaaba boobu tudd ki yoroon secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd Huzayfatul Yamani tey rek maa ngi koy jàngal xale yi borom téere bi naan aabit la woon jaamukatu yàlla la woon woorkat la woon ku dëdd woon àddina la ku daan jihaat la ci yoonu yàlla xoolal yëpp mu boole ko ah allahu akbar Omar jël ko fal ko ci madain ne ko demal nga jiite nit ñi gaa yi génn dégg Huzayfatul Yamani mooy ñëw mooy suñu amir gaa yi di ko teeru ni ñuy teeroo président mu war mbaamam yor mburu mbaam la war yor mburu ñëw fekk dëkk bi yëpp taxaw mu romb leen jaar seen digg xamuñu ne moom la ndax mbaam la war mburu la yor waaw mu dem ba bëgg a yegg dëkk ba gars yi toog ba sonn gisuñu ko ñu ne waaw yéen ana Huzayfa ñu ngi koy xaar ci ay gëléem yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci ay yére yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci mbooloo moo xam ne ah ay motard fii ay escorte loolu la ko gars yi di xaar moom waroon mu ne leen bu yàgg gars yi dabi ko ñu ne ko waaw yow yow la Huzayfa mu ne waaw man la kay ñu ne ko ah waaw gis nga ndeysaan gars yi dalal ko ne ko loo bëgg mu ne ñaari mbir lu may lekk sama mbaam mi ngeen yërëm ko kese laa soxla soxlawuma leneen mu falu fa diir Omar woolu ko ndeysaan di ko seetluwaat di xool ndax Xuzayfa comme amir la woon gëj naa koo gis xanaa léegi ndeysaan bëgg na àdduna xanaa léegi Xuzayfa am nay gëléem am na am na am na am na am na am na am na Omar daal ni ko ñibbisil Xuzayfa waraan mbaamam ñibbi yoraan mburóom ndeysaan Omar seen ko ndeysaan muy cukki cukkeek mbaam bi di ñëw ak yetam bu ndaw Omar ne kii de bi muy dem nii la demee woon dara topp ko dara topp ko ci mbirum àdduna bi muy dem nii la demee woon bi muy ñëwaat nii la ñëwee mbirum àdduna dara topp ko ci kii da bàyyi na àdduna bu yàgg oh Omar taf ko ci dënnam ne ko anta axi wa ana axuk ndeysaan Huzayfa kon mbokk jullit yi doomu aadama suuf si dong moo mun a nekk saxuwaayam waaye sa saxuwaay boobu tamit dafa am limite bu yaakaar da nga fi nekk éternellement déedéet ay fan ay semaine ay weer ay at après da ngay dee wala yàlla mu ne wa mataaun ila hiin di nga fi bànneexu rek ba benn diir bu ndaaw tuuti waaw tatamattau bil haya tamattau bil hayat ila hiini inqidail ajalikum dañ fi bànneexu tuuti rek ñenn ñi dañ fi am ay weer ñenn ñi am fi ay at takk soxna ñenn ñi jot fi am ay doom ñenn fi jot fi am kër ñenn ñi après daal dee kenn du fi sax allahu akbar wa mataaun ila hiin di ngeen fi bànneexu tuuti ngeen fi bànneexu tuuti waxtu yu ndaw la loolu ñu fi bànneexu nag jarul tax yàq alaxira ndax alaxira moom foofu lu ñu fay def moo tax alquran nañu bal tusiruuna alxayata addunia wal axiratu xayrun waaye nag adduna lañ gëm ndeysaan adduna lañ gëm moom la ñu màtt ak suñuy bët moom la ñu waaye nag yàlla nee na adduna day jeex de alaxira gëla ngeen di dégg di ko bañ fa ngeen jëm de buur bi dafa romb kooku ñu naan dafa dof Haruna Rashid mu romb xa- kii Bahlul ci armeel yi Bahlul tëdd sa ñaganaayu Haruna Rashid ne ko eh Bahlul dof looy def ci armeel yi mu ne ko yaa yaakaar naa yaa ma gën a dof de yow mi dundal luy ràpp daa di ràppal luy dund mu ne ko man président bi maa la gën a dof mu ne ko wóor na yàlla yaa ma gën a dof mu ne lu tax mu ne ndax da ngaa da ngaa dundal àdduna bàyyi armeel yi te yàgg-yàgg di nga bàyyi àdduna ñëw ci armeel yi waaw di wala dëgg de waaw baxlu yow lay def ci armeel yi mu ne damay xool yaxu buur yeeg yaxu baadoole yi ndax benn façon la wala am na bu gën a rafet mu ne ko noo ko fekkee mu ne lépp fa takunu sawa lépp a yem yëpp a funax allahu akbar e baxlul tey gaañ nga ma de wax nga ma loo xam ne tey du ma reer waaw baax loolu léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko li ma bëgg mënoo ko amoo ko mu ne loo bëgg mu ne ma bañ a dee mu ne loolu de amoo ko mu ne waxal leneen mu ne nga dugal ma àjjana mu ne loolu tamit mënuma ko mu ne kon bàyyi ba ma dem ci ku ko mën est-ce que kooku dof la te pourtant téye dañu bi ne baaxlul dafa dof non te addunaam yëpp loolu la yooyu yëpp benn bis Haaruna Rashid dafa tabax benn château mu ne ñëpp nañ ñëw xool château bi tout bu leen bàyyi kenn ñu buub nit ñi rangale leen di leen won château bi ku dugg rek allahu akbar allahu akbar ba ñëpp jeex mu ne ñu ne ko dëkk bi de jeex na mu ne ah ñëpp baaxlul ñëw na dof bi ñu ne déedéet ñu ne ma yéen mu ne leen lan laa leen waxoon ñu dem yenn ju ko indi mu ne ko Haaruna ne ko gis nga sama kër gi mu ne gis naa ko kay mu ne loo ci wax mu ne ko nganneel nga àdduna bàyyi àllaaxira te yàq nga ciment te maa ngi lay yëgal lii bu dee sa alal la perte nga ko ndax léegi nga dee ñu génne la bu dee alalu julli la yow mal xiyaam am nga problème ci kanamu yàlla mu ne amir mu ne génn naa kër gi suur naa ko génne leen kii daal di suur kër gi wana dëgg waaw ngandal nga àdduna ndawal nga àllaaxira allahu akbar bu fekkee sa alal la perte nga léegi nga dee ñu génne la su fekkee alal julli la yàlla dina la pañe yow mal xiyaam mu ne la lu tax nga jël alal julli di ko tabax ay kër xanaa suñu président yi dégguñu loolu ñi nga xam ne milliard milliardu nit ñëpp lañ tëdd dafa ne duñ dee koo wax rek ñu ne la jàpp leen ko dugal ci kaso bi dafa nekk dafa nekk kaso moom koo jàpp dugal ko kaso yàlla dina la jàpp ba ëllëg dugal la ci bàmmeel te di ngeen layee ji ëllëg yow man xiyaam ci kanamu yàlla te foofu mooy mbir yi fii day jeex fii boo fi nekkoon ci château sax ba yawmal qiyaamati bis dina ñëw ñu wàcce la château bi laa budda wax nañ ko léegi wa mataaun ila hiin tuuti rek lañ fi bànneexu yawmal qiyaam fa la lañ jëm àllaaxira xaala yàlla mu ne àdduna boobu ma leen wàccee te ngeen fi bànneexu tuuti fii haa tahyawna foofu ngeen di dunde de ndax foofu la dundu am wa fiha tamuutuna foofu ngeen di deewee wa minha tuxrajuun foofu laa leen di génne ëllëg yowmal xiyaam atte leen kon leer na amuñu rawukaay fii rek la fii rek waaw gars yi dañuy wax ne ku mere yàlla mattal sa sikkim acca ku mere yàlla da ngay matt sa sikkim wala nga matt sa bakkan yàlla mu ne man lam yarda ala qadaa'i wa lam yasbir ala balaa'i képp koo xam ne nanguwoo man yàlla ma nekk sa borom li may tege nanguwoo koo dékku nanguwoo muñ samay nattu mu ne génnal sama suuf si bu la sama asamaan tiim demal nga jaamu beneen yàlla bu dul man ku ko mën est-ce que mën ngaa dem fu amul suuf aha kay kenn mu ne waaw waaw mun naa ko damay dem biir géej ah géej amul ci suuf suuf de yàlla mu ne d'accord naa léegi yaa ngi ci kaw ndox mi waa léegi bu la asamaan tiim kan moo mun a dem fu amul suuf amul asamaan ah kon mënuñu rëcc yàlla moo tax yàlla mu ne wa ma antum bi mu'jizin du fil ard wala fis sama du ngeen rëcc ci suuf asamaan waxi noppi kenn ci yéen du rëcc moo tax yàlla mu ne haza yawmul fasl jamaanaakum waaw kenn du rëcc fa in kaana lakum kaydun fakidun tey bu ngeen amee ay pexe rek fexeel leen ma ku mun a rëcc rëccal allahu akbar ya maasara al jinn wal ins in istataatum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ard fanfuzu kon aaya yaa ngoog ñu bàyyi xel sunu borom loolu mu ñuy wax loolu mooy dëgg mënuñu uti beneen dëgg bu dul lii téere bii mooy téere sunu borom lii mooy waxu yàlla suñ ci jàppee dañuy jub buñ ko bàyyee dañuy alku mënuñu am feneen njub mënuñu ëllëg am kontante yàlla mënuñu am ngërëmam loolu ci téere bii noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu